dama mas dégg ci Serigne Aline Gueye mas a dégg itam ci lamin Gueye mi ñu tuddee stade bi mu ni ma euh, sa maam euh, Seydi El lu mu wax ci politique mën nga ko jëriñoo léegi wax ci diine mën nga ko jëriñoo léegi ci politique waaw mu jariñ la abadan man dégg ci Serigne Aline mu ni sa maam de daan na wax ni nitu yàlla yi li tax bu ñu toggee ci nen du toj moo di dañu doon xam kañ la yàlla yi wëlbati ko mbiram ma dégg itam ci sëriñ abdu mii mu wax loo xam ni bés ba léegi dama koy nettali kilifa yu bare waaw mu ni ma a ah, xam naa ki yàlla yéege ca kawde ngay njaboot di tëral ko daaneel daa ca def pexe ba yàlla foofu la jëppi mu ni ma tu ko yàlla jëppi dootoo dem mu ni ma ki yàlla yéegi te tàggoo kenn ba mu àgg ca kaw bu dee wut pexem boppam mu ko fa téye bala pexe àgg yàlla dana ko jëppi mu ni ma te ñaar yi rekk a fi nekk ba dal di cay déggee la sëriñ Alioune ngay waxoon njaboot toog ci nen mu bañ a toju ko jig kilifa toog ci nen mu bañ a toj moo ko jig waaw jàmm jàngoo njaboot toog ci nen mu bañ a toj moo ko jig kilifa toog ci nen mu bañ a toj moo ko jig bu ko defee tey dal dikk waaw bu tey dikkee nag leer leer a cay topp te leer leer lu ñu ci liggéey rek mu sell